auditeurs yu Rewmi FM Dakar 97.5 mais aussi téléspectateurs ak internautes yu Rewmi TV yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11 ci seen émission euh, toute la ville en parle lii riir si dëkk bi tey ji seen émission sociale toute la ville en parle euh, dalal Sayer euh, Tambédou Sayer Tambédou initié mouvement bi di Macky 3 je m'engage maanaam di yëngatu ci wàllum politique nekk tamit initiateur bu projet touche pas à ma table président des jeunes marchand de débrouillard euh, du Sénégal ñu fa yéene waxtaanee jafe-jafe yi ak aussi actualité bi jëm ci wàllum politique ak social ak kile di Sayer Tambédou euh, Sayer Tambédou maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waa Ndeye Comba ma sœur maa ngi lay fay. di am contentement trop ci sa invitation bi. Mm-hmm. yow soo ma invité rek damay sol parce que nee lu yàgg dëgg la. dëgg la waaw euh, man a yow ay ati ati at et tout vraiment may rafetlu sa engagement sa xel bu rafet position si si réew mi mm-hmm. di nuyu sénégalais yi ak sama mbokk marchand ambulant yi may seetaan yëpp mm-hmm. ak tous les membres du mouvement M3JM m waaw mi ngi noonu kon muy Sayer Tambédou xam naa tey waxtaan bi dina neex déjà euh, dinañ dugg ci association bi nga xam ne yaa ko jiite yàgg na mm-hmm. président des jeunes marchands ambulants et et euh, du Sénégal lan moo waral euh, kuréel bi nga sos ko Sayer Tambédou ba ñu ràññee la ci bu baax a baax. en fait Kumba soo gisee ñu ñu ñu ñu placer mouvement bi. Mm-hmm. association des jeunes marchands ambulants débrouillards muy saytu lépp li nga xam ne moo jëm ci. ci ak ak yelefu jaaykat yi maanaam marchand ambulant yi ak marchand tablier yi mhm. bon parce que gis nañ waaw ñi ñiy teg table mhm. parce que à chaque fois ni ñuy day wax marchand ambulant rek dañuy wax way yéen doo leen ay ambulant parce que am ngeen table mhm. or que dafay am ñuy wër am ñu teg table ñoo ñëpp nag ñoo dajaloo ñu def benn bloc mooy mooy si la si la si la asso AGMD judd quoi association des jeunes marchands débrouillards du Sénégal. mu nekk kuréel boo xam ne nii seen national mën naa ne wax sax c'est international. Mm-hmm. parce que membre yi si nekkoon day am ñu génn dem nekk si yeneen i réew ñu ñu nekk suñu représentant foofu am na Brésil Espagne Italie France. Mm-hmm. Argentine fépp ñu ngi fa képp koo xam bokkoon nga si rek soo génnee dangay dem yaatal affaire bi foofu bon ñuy liggéey liggéey bu mucc mucc ayib di di fexe daal à chaque fois que. bien-être marchand ambulant yi ak tablier yi parce que ku ne gis na ne ñun ni ñuy dundee metti na trop vraiment di remercier à passage le président Abdoulaye Wade parce que moom rek moom mooy ki nga xam ne moo amoon initiative boo xam ne nii doon na am recasement totale des marchands ambulants mm-hmm. si si régime mm-hmm. parce que soo xoolee surtout Petersen bi nga xam ne mu ngi ne yàmbalang foofu tey le maire Aliou Ndoye accaparé affaire bi toog si di recaser ñu ko neex loolu doon pour du doon pour ay pour parti pour politique c'était projet social mm-hmm. et apolitique gis nañ ne si départ bi nga xam ne président mi ngi doon waxtaan pour jële fi nit ñi ay nit ñoom boobu nekkuñu woon maire ak yeneen maire ñoom ñoo taxoon di ñëw di influencer nit yi ne leen que président mag président Abdoulaye Wade moomul sit bi bés su leen fi yëkkatee da koy jaay ñeneen mm-hmm. pourtant yëkkati nañ leen fa man ma bokk si acteur principal ak le directeur de l'ANAMA temps yàgg ya madame mm-hmm. Fatmata Sy mm-hmm. ñu liggéey si liggéey mucc ayib ak ay yeneen responsable yu nekkoon Petersen et au niveau de Dakar ñu naxtaan ak gars yi ba ñu jóg si lañ commencé projet bi ba ba ba ñu def fondement ba affaire yi di jóg mm-hmm. sur sur benn marché boo xam ne ni c'est quatre étages si kaw nekk benn banque boo xam ne mooy jàppale jaaykat yi kon xam nga loolu solution la woon sur je sais pas trois cent trois cent et quelques mille places quoi. Hmm. konoon vraiment waaw moom mu ngi si non commencé woon nañ ko. Hmm. mais yàlla mi dara tawul nag régime boobu hmm. moom eggalewul chantier yi ba tey yaa blocage. affaire baa ngi foofu. maanaam lan mooy jafe-jafe actuellement euh, marchand ambulant yi ak tablier yi. bon seen jafe-jafe mooy ay recasement nga Mm-hmm. xam nga en fait euh, président Macky Sall bëgg na dugg si loolu mais ku nekk gis na ne moom durant bu mu fi nekk yaa problème entre moom ak mairie yi moom au niveau de Dakar la président Macky Sall moom gañewul mairie yi quoi. Mm -hmm. mais ñi nga xam ne ñoom gañe na mairie yi ñoom dañuy téyel dans toujours marchands yi parce que xam ne les marchands étaient avec le président Abdoulaye te ñun nëbbutuñu ko nëbbuñu nëbbuñu woon loolu. Mm-hmm. yow yaa àndoon ak président Abdoulaye Wade. bon waaw mais soo xoolee majorité bi. xam majorité waaw loolu yow yaa ko wax. non keneen bu toogoon dana man maay majorité non gars yi xamante nañ fii nii. Mhm. yow yàgg nga ñu invité. ñun ñun yow yàgg nga dugg suñu biir xam nga association yi xam nga base yi xam nga ku nekk fi mu mënee fi mu tëlee ak fi mu aaye ak fi mu aayewul mais soo xoolee di nga gis ne carrément Sayer Tambédou ak ñi mu àndal mooy majorité parce que tey ñoom suñu suñu téye daan boobu ba léegi que li li xewoon démb parce que ñoom ils disent ñun bokk nañ li daanee seen régime juste ñun ñu ngi doon soog a am carte d'identité xam nga loolu kooku dalay jàppal dans boobu ba léegi mm. man si loolu laa gis ne ñoom si loolu lañ sukkandiku di continuer di xeex ak ñun léegi président Macky Sall lan la mën mu ne mu budget am mu jox mairie bi def leen lii se c'est se maire bi nag léegi mooy xool si moom lii lay def wala la lay def Mm, euh, Khalifa Sall si la jëlee décision mu déguerpir ñu moom. Mm. à l'arrivée du président Macky Sall. Mm. Khalifa il di carrément que woy man bëggoon naa leen fi jëlee yàgg na mais Sayer Tambadou moo doon dox sama diggante ak président Wade te man nëbbu ma lool loolu laa doon def. yow yaa nekkoon barrage. voilà voilà parce que président Abdoulaye moom xam na moom marchand ambulant ñoom économie bi ñuy dugal ci réew mi ak. Euh, jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon dund ak li nga xam ne mooy njaboot gu topp seen ginnaaw lañu yor moo tax moom mu jàppalewoon ñu am suñu yërmande bàyyi ñu ñuy liggéey mais moom bi nga xam ne moom mooy le maire Khalifa bu mu ñu fi jëlee au vrai dire moom tabaxoon na benn centre commercial au niveau de Félix Éboué mais bu muy jënd bi muy jënd affaire bi ñun yëguñu ko. jékki na jékki mu ne jënd naa terrain foofu laa leen di recaser ana terrain bi mi ngi Félix Eboué gars bu ñu demee xool terrain bi terrain bi nekk na un zone inondée foofu benn aller rek la amul aller retour xam nga jaaykat moom li gars yi di wax fàng dajj quoi sëñ Fallou sax day wax loolu jaay fàng foo foo nekk bu nee fàng rek nit ñi ku romb sax bu gisee dina jënd mm. fekk bëgguloon mais su enclavé nag am na am na nit ñoo xam amuñu jot di déplacé ba si ay centre commercial mm-hmm. am na ñoo xam ne nii li ñuy jënd yëpp si ay marchand ambulant la ñuy xaar rek ñu jënd ko ñu dem seen yoon man gis naa kenn ko xam day toog fenn gaare otoom de ku romb rek mu jënd ku romb mu jënd ba li mu bëgg a am yëpp mu dem yoonam xam nga kooku tey soo ko bëggee wax demal Félix Éboué munul dem foofu euh, Félix Éboué boobu noonu bi nga xamee ne mooy sit de recasement yi ñu xalifa dugaloon. Mhm. en 2013 gars yëpp xajuñu foofu en plus gars yëpp amuñu pour fay xam nga tey koo toog ku toog pa maanaam lu mat ay sept mois huit mois neuf mois ba un an yow yow liggéeyoo da ngay da ngay tëbaka jox da ngay jóg kat daanu nga bëgg ko fayloo trente pour cent nii tey après tous les mois kooku mënul loolu. Mhm. marché ba finalement am na ay jaaykat de mais li si ëpp li mooy tailleur yi. à chaque fois je lance liñ teg dafay métti si ambulant voilà yi te se te ruqe na si jamono boobu noonu Aliou Ndoye moom am na problème ak Khalifa Sall du ma nëbbatu hmm. moom moo ne gaay bu kenn jóg bu kenn dem foofu xam nga marché boo xam ne marché moom su feesee hmm. ñëpp dem fa mais marché bu fekkee ñii ñi ngi ci biti ñii ñi ngi ci biir affaire ba mënul dox léegi yow au lieu que ngay dem ci marché bi da ngay yem ci rond point Petersen bi hmm. parce que tey jii euh, soo gisee ne euh, état ak marché boobu nu mu doy état war na mun a jël marché bi man à chaque fois ma wax loolu que président Macky na jënd marché bi mu may ko marchand yi loolu mën na ko du dara si moom ko avec tout le respect je lui dois ak lu ma koy jàppale encore dama koy ñaanaat fii tey président soo munee jënd centre commercial bi jënd ko nga jox ko marchand ambulant yi. dina euh, dina dina dina wàññi benn benn benn somme bi benn benn benn nombre bi nga xam ne ñu ngi si mbedd yi autant que parce que yow bëggoo yow ngay dee taabal rek sa àdduna gi yëpp ngay lalaka laali di daxante ak policier tey ñu jàppale yóbbu ainsi de suite. Hmm. léegi reconstruction marché Sandaga bi est que associé nañ leen si. bon bâtiment bi ñu daaneel. war ko defaraat man à chaque fois associé nañ leen si si si bu ma dem wala rajo suñ ma laajee question boobu rek j'ai mal et j'ai honte. sa xol dafay jeex. voilà parce que man bokk naa si. responsable yi nga xam ne ñoo tax marché bi ñi fa nekkoon génn. Mhm. Euh, je je le ministre de l'intérieur à l'époque Aly Ngouille Ndiaye qui mm vraiment mu nekk nit ku baax ko ubbeeku. Mhm. Ali gis naa ko ma ñaan ko fekk jaaykat yi ñoo ma ñaan de xam nga xam nga comme le mouvement comme mouvement bi nu mu amee noonu day am ay commerçant am ay tablier et tout. noonu la amoon am ay commerçant yoo xam ne nii ci jeunes débrouillards yi lañ bokk. nekkoon si marché Sandaga bi ci biir ak si alentour yi ñooñu ñu ñëw ñu ne ma prési gars yi da leen ñuy dindi marché bi ma ne leen ah mu ne waaw ma ne ah loolu de yéeme na léegi nag ñu ne ah ñiy jël nañ décision. Mm-hmm. ma ne kan moo wax loolu ñu ne ma ministre Abdou Karim Fofana. Mm-hmm. tu vois léegi man man ma ne ah mu naa ma ne leen dañ leen bindal euh, sommation wala ñu ne waa indi nañ sommation gars yi wan ma sommation bi ñu expliquer ñu ne que marché bi il faut gars yi jóg fekk veille tabaski bi mi ngi ñëw. Mm-hmm. jaaykat yi si boppam ñu ne ma ñoom léegi d'accord nañ ñu jóg quoi bu fekkee sës na ba sës. Mhm. mais nañ leen may ba après tabaski man foofu laa intervenir ma ma ma ma woo aar ma ne ko ñun dañu bëggoon nga dañu bëggoon nga recevoir ñu ak commerçant wu marché Sandaga yi ñu xool quoi ñu trouver terrain d'entente mais vraiment nga may leen ba après tabaski bi Ali mu ne ma mu ne ma seer mhm. man bañu ma lool mais man man man rek du man rek may concerné bi yaa un ministre dont xam nga tutelle muy muy diw xaaral ma xool ñu xool léegi ñu woo ko ñu trouver terrain d'entente ma jël jaaykat yi ma yóbbu leen si le ministre. Hmm. léegi ñoom bi ñu demee foofu ñoom ñu ñoom ñu jël engagement que ne ñoom dinañ jóg mais su ñu jógee waay waaye li ñu waxante ak ñoom nañ ko def c'est pas Ali kii c'est pas Ali mooy defar marché ñëpp ñu ngi may dégg. Hmm. dafa amoon benn ministère bu ko chargé ànd ak ak ay mairie léegi moom ministre de l'intérieur lu mën alkaati yeeg yi ñëwoon yëpp gars yi ne leen toog leen ñu toog ñu may leen ba après tabaski bi ñu yëkkati marché bi day ko ma ñi ngi demaat nii si tabaski mooy nekk trois ans mhm. marché baa ngi tëju daaju ñu fa pont wekki ñu fa pont defaruñ ko pour lan ñaari intérêt personnel wu ñaari mair muy muy le maire du ma waxati maire Soham Wardini c'était mm. ma mère mm. dama koy woo ma ne ko yaay booy yow jàppale ñu yow waroo def nii nii nii mu ree seer yow sonal nga ma ma ne ko tabaxal marché bi mu ne man marché bi ba ma ko tabax mais y'a problème y'a si y'a wax leen ak seen maire bi nii nii expliqué entre le maire de la ville de Plateau man du ma tudd. Alioune Ndoye ak ak maire ak ak sa problème ak Alioune Ndoye ak maire maire ville de Dakar comprendre nga comment fekk nit ñoo xam ne nii kenn ku si nekk yow yaa ngi toog si dépense u dix ans ay jaaykat yoo xam ne il vit le jour au jour nga privilégié leen ñoom seen teraanga nga nekk si nga nekk pour ping pong seen perso intérêt personnel moo tax ñu tëj marché bi moo bloqué reconstruction léegi Barthélemy dafa ne kenn du fi tabax marché mhm. keene moom mooy tabax barte bi mu ñëwee voilà no moom ak maire bi la woon avant moom ak madame Soham Wardini waaw kon xam nga loolu yàgg na. ville de Dakar waaw waaw waaw ville de Dakar la. Mm. ville de Dakar xam nga ville de Dakar ville de Dakar la soo moo fa nekkoon mu ne ville de Dakar moo moom marché Sandaga. Mm-hmm. maire Dakar léegi ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom dañ leen a fekk Sandaga est-ce que ñoom ñoom ñoo leen gën a yey si Sandaga ñi nga xam ne dañ si am ay doom am si ay kër am si lu nekk am si am si am si nga jékki-jékki ñooñ tey ñaari nit pour intérêt personnel ñu ñu écarter marché bi tëj marché bi yaa trois ba mi ngi nii man su démb doon tey ma jégalu si kàddu bi mais stratégie bi gars yi tegoon dama ko doon bàyyi après ñu xool. mais man comme gis naa maa ngi doon jàppale président Macky Sall bugguma jéyee boobu di am. Mhm. xam nga gars yi dugg nañ si marché bi ñu ne na leen fa caterpillar yi fekk ñu rey leen. Mhm. ñu lanka ah, attaqué nañ leen ñaar yoon ñoom ñu ne génnuñu man ma dugg si biir di waxtaan ak ñoom ay kilifa di naxtaan di waxtaan di naxtaan ba ñoo ñu génn am yeneen saay-saay yoo xam ne nii xam nga foofu day may buuju maan côté bële. <laughs> si jëm yoon jëm jóge si rue Sandiniéry bi prolongé mhm. gars yi ay saay-saay ñu jox buuju maan yi ñu naan sàngara ba màndi ñu dugal leen si suufu marché bi su sol xam nga ñooñu li ñu bëggoon li bu ñu daanelee marché bi ñoo ñëpp dee ay presque ay soixante et quelque buuju maan yi nekk si ah. sous-sol mhm. sama benn xarit ku baax ndey ndeysaan maa ngi koy nuyu de passage jii li mu ne ma président ah, mu ne ma waxal ak sa gars yi parce que man li ma gis fii mu ne mu ne ma bu ñu daaneele marché bi dinañ frais presque lu mat juróom fukki nit ma ne ah mu ne mu ne ma ma ne ko loolu moom il faut ma teg si sama bët mu ne ma kaay mu ne man ñeme ma dugg foofu mais demal man ñëpp sama ay xarit lañ quoi ma ma tooñ sama benn waaye ku ku ñuy wax Mika be si buuju maan ma ne ko mais tey moom il faut ngeen alma ma kii mu ree mu ne ma yow doo def loolu affaire ma ne ko non il faut ngoon ma fu gars mu ne ma kaañ dem ma topp si ginnaaw mu may wàcce mu may wàcce ba fii gars yi tëdd mm-hmm. gars yi ñi ngi man di balang maa ngi def foofu xam ay presque trois heures du matin. trois heures yi gars hmm. tëdd foofu nelaw man di fàtte seen bopp mais imagine kater kii bi daaneel bu ñëwoon daaneel ñaata nit lay rey. te ay saay saay de mauvaise intention ñoo doon def loolu xam nga lu ñu doon wax du ñu wax ne rey nañ buuju bon buuju maa ni ay nit lañ sax quoi. Hmm, hmm. mais dinañ dinañ wax leneen quoi. et ñooñu ay nit lañ ci société lañ bokk ainsi de suite. comment ça fait nit di xalaat xalaat bu ñaaw boobu nga jëmale ko si doomu aadama comme yow pour sa propre intérêt parce que bëgg nga Macky Sall dem rek wala ñu ne moo rey nit ñi wala leneen loolu ñaaw na. donc yow yaa tax ba ñooñu génn. ma fexe ba génnee ñooñu. avant ñuy daaneel bâtiment voilà non seulement man génnee naa ñooñu mais yeneen. responsable ay kilifa yu mag laa la wax de ñoom dañu lankoon ñu ne ñoom na leen ñoo ñu rey moo gën ñoom ñuy ñuy ñuy dem ci dund gu dee gën te tey loolu am na. dund gu dee gën. waaw parce que waaw xam nga tey jii. léegi Barth bi mu lan la proposé moom dafa ne Alioune du tabax marché bi. Alioune na ko moom mooy tabax marché bi waaw ñëpp ñu ngi leen di gis ñoom ñaar ñu def bras de fer. Mhm. Barth da ko ne fii doo fi tabax kee ne ko dinaa fi tabax en ce temps yow yaa ngi bàyyi ay junniy junniy nit. commerçant yi di souffrir di souffrir xam nga fan lañ leen jël yóbbu ñu ngi leen jël yóbbu centre de course. ndey kumba centre de course xam nga lan moo fay jar mhm. tamaate yi gej yi yéet yi yow xam nga foofu mhm. marché jigéen la légumes yi dina fa jar mais yére munul jar foofu ñu jël gars yi jàpp leen yóbbu leen foofu xam nga ba léegi kenn nekkatu fa xam nga loolu yàq la yaa ngi jël ay 3 milliards 4 milliards ngay bugg a casé kenn foo xam ne ni fi nga ko yóbbu c'est pas bien yow leer na ne lii arrangé wu ko. nga bàyyi ko foofu moo tax nga waaw yooyu xam nga. yooyu si si xeex bi la. waaw waaw si la bokk marchand ambulant yi jafe mhm. xam nga touche pas à ma bi. mooy temps yi yi di taal suñu table yi en 2012. Mhm. yaa ngi fàttali. waaw opposition bi ñu ne na Abdoulaye Wade dem. Mhm. ñoom chaque suba rek ñu jubal ci Sandaga bi di bu bu nit ñi dawee. ñoom guddi si dañuy jël taabalu jaaykat yi. Mm. ñoom lañ daan teg si tali yi di ko taal. Mm-hmm. après man si laa ne gars yi trop c'est trop léegi affaire de troisième mandat du du du popula du du Moussa wala Demba wala keneen moo naan du fi am. conseil constitutionnel mooy validé su conseil constitutionnel validé bu ne Abdoulaye du dem laa du dem bu ne laa day dem Abdoulaye day dem kon loolu yoonu marchand ambulant yi nekku fi man léegi nag ñii ñoom ñoom. ñun suñu teraanga lañ bugg a yàq parce que ñoom pouvoir la ñuy wut ñun dépense la wut ñoom buñ ñu ko gënal. Mm. ma dajale junni xaw ñaata ëpp na ay milliers de personnes ma ne leen tey kaay leen taxaw ñi yor ay yet ñeneen ñi taxaw ñu taxaw xaar leen ne leen boo leen fi ñëwee tey ñun ak yéen maa ngi fàttaliku temps yooyu dem si yàlla préfet bi Sakho ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm mm. moom moo kar gaay mu ne leen. tey bu ngeen demee fee jàppante ni na am ñooñu ne day ñëw mais dooleetuñ ko Idrissa Seck bii tey si la ñëw mu naan daf lay expliquer ñu ne ko ñun amuñu lu ñuy wax ak yéen. Mm-hmm. boo leen di mob boo leen di marsati dem leen ca géej ga wala feneen mais Sandaga bi heure boo leen fa duggatee rek ñun ak yéen lañ boobu la fa affaire ba dakkan ah, ñoom bu ñuy taalati. Mm-hmm. yeneen côté la ñuy dem mais. pas fi ñu doon nekk noonu mais mais yow euh, Sayer Tambadou say da nga bëri problème ak euh, Alioune Ndoye Hmm? est-ce que mën nga ñu expliquer ñu xam exactement sa problème ak alindooy lan la ba à un moment sax nee nga Alioune Ndoye daf lay menacer de mort dañ lay booleeg euh, ay agresseur je sais pas quest que qui se passe e-, exactement ak Alioune Ndoye man lu ma jotee ñoom waaw ba tax nga koy attaquer tout le temps ci réseaux sociaux yi non man bàyyi naa fàtte naa ko léegi hmm. mais mais jàppante nañ xam nga xam nga moom euh, man bokkuma bokkuma si ñooma ah. mais damay soutenir président Macky Sall. waaw après dinañ si ñëw. comprendre léegi moom bi ñuy dem si élection euh, locale man candidat laa woon mairie de Dakar ak candidat mairie Dakar Plateau. xam nga kon man arrangé wu yow foo toj ba naan ay candidat la mairie Dakar yow tamit nag. waaw yow tamit nag xoola ñun nag tekki nañ si dëkk bi dara. Sayer yow tamit kan moo lay. xoola xoola y' a ah, vingt nga am. ah yow foofu nga toll toogal foofu ñoom ñoom mais ñoom xam nañ li tax ñoom ñu fexe ba man génnee ma foofu man diiruma Alioune dama ne ville de Dakar laa soxla ak Dakar Plateau. ville de Dakar ak Dakar Dakar ak Dakar Plateau laa postulé. comprend nga lu ma la ñoom ñu xam ne loolu arrangé wu leen ñu gis Umar Sarr koo xam moom laay àndal bu be bu PLD. Mhm. si parti Umar Sarr bu ñu nekk noonu PDS. ñu ne ko ñu ne ko waxal ak Sarr mu retiré. candidature bi ñu xool et tout et tout. Omar mu ne ma Saer mu naa mu ne ma comme ñun ñooy ànd man su ma la toppee si lii fekk chaque parti rek moom am na droit investir kenn fu mu bëgg te ñun suñu parti joxe nag caution léegi Omar mu ne ma man bañu ma nga dem de soo buggee dem demal mais dama lay ñaan parce que comme ci mouvance présidentielle laa bokk dagana ñu ngi ma fa def tête de liste président damm na loxo ñëpp ñu ngi topp sama ginnaaw comme yow fii président nee na nañ jàppale Alioune man man boole ma si wax xam nga tey mënuloo nga ne yaa ngi jàppale Diouf Sarr Dakar mais xeex leen kii. Mm-hmm. ma ma xeex pour Dakar Plateau ak ville de Dakar pour que Benno Bokk Yaakaar am ndam. Mm-hmm. yaakaar naa Benno Bokk Yaakaar am na ndam Plateau mais gañewuñu Dakar. Mm-hmm. on passe ñu dem si élection député yi xam nga ñoom trahir nañ ma benn yoon man xam naa ñii c'est mes parce que loolu c'est depuis libéral. ñoom bëgguñu gis koo xam ne ni kii doomu Ablaye la wala surtout man gis naa ñoom daan lañ ma teel quoi. et man du ma nekk nit ko xam damay lambar lambar si ay bureau jàmbur naan la ay sarax maag jàppale maag leneen man munoon naa di def comme ni gars yi di def di dóor man munoon naa di xëy di dóor comme ni gars yi def mais du ma ko def damay lal sama lal lu ma am ma xam ne lii la ma yàlla jox ma dem ñibbi. soo paree nga def sa euh, activité politique. waaw ku ma bëgg a song ma song la parce que dama bëgg a dama bëgg a am liberté d'esprit noonu la léegi si affaire bu mu demee noonu moom mu ne gaa yi di xëccoo dakaar pour tête bi. au niveau de Benno Bokk Yaakaar mu am ay coow ñu naan Amadou Ba la ñu naan kii la ñu naan kële la ñu naan keneen la. Mm-hmm. ñu jox ko Alioune léegi moom ci ci campagne tout le temps da doon wër mu ne moom moom moom Dakar moom lébu la xaw ma expliqué. dinañ wane ne moom waaw waaw moom day wane ma ne ko yow doo gañe waaw ah. wax ko ko ma ne ko yow doo gañe te dinaa la wan ne yow munoo gañe et puis dès yow foo dem dinaa dem foofu mag contre contrecarré la yow doo gañe xam nga ñoom dañ wax kii tekkiwul dara. ma mm. ne leen ñu dem mais bu ñu demee ba mu sës moom gañewul ah Alioune Ndoye moo ñu perteloo 17 députés Dakar gañewuñu dara dakaar au niveau de la mouvance présidentielle. bu leen neexee suba nañ dellu si waat. mu jógee nga ne Alioune da lay sonal. non waaw waaw waaw léegi léegi léegi léegi man bi ma waxee loolu. Mm. dama ne ko comme gañewuloo danga war a démissionner. te man bu ma président recevoir wax naa ko ko man du ma nit kuy moytu dama ne président ma ma ne ko su fekkee si Alioune Ndoye nga yaakaar pour nga gagné Dakar tu vas au mur moom munul gagné président Macky Sall loolu laa ko wax. kon xam ma su ma nekkoon keneen président mën na ma recevoir may ut lu ma mole mais dama ko tegal dëgg ma ne ko en plus ñoom nee nañ yow yaa ne ma bu ma bu ma nekk candidat ville de Dakar moom mu ne ma musul wax loolu est-ce que comprendre ma la. Mm-hmm. léegi nag noonu la ma jël sama propre yoon président mu ne ma. seer yow man ngay jàppale bàyyil histoire mm. est-ce que bàyyi leen quoi genre mu nice quoi voilà waaw non dama ne ko dama ne ko yow comme gañe woo démissionné loolu laa ko wax loolu kese lañ jotee ah non même Kumba mais yow xam nga ne si mais yow yow mais dama ne waaw mais yow leer na la yow si élection 2019 ya candidat laa woon j'étais rejeté wala loolu da ko fàtte élection présidentielle. deux mille dix neuf waaw mais mairie Dakar nag tamit Sayer. non waaw dama ne waaw doo ma wax dara waaw waaw waaw doo ma déglu dama ne. li may laajee mairie <laughs> Dakar. li Barthélémy mi nekk non mais dama leen la dama leen la. élection présidentielle la présidentielle. waaw man candidat laa woon wala yow fàtte nga lool. non fàttewuma ko. mais loolu ah, am na mais loolu comédie la. comédie comédie la xumbal. xumbal kii nii man am na si ñoo xam ne nii am si bës. mais xam nga ne yow mais am na si ñoo xam ne parrainage sax mënoo ko am. waaw loolu laa lay wax ni man am na ñoo xam man parrainage yi ma yi ma am man. waaw ñoom amuñu ko. man tuuti parrainage moo ma tere ay ay ay jaxasoo ay dub ay dub yow yow yow sa da ngaa xam sa nu ñuy defaree eh, parrainage non mais xam nga du nekk yow staff lay nekk waaw man candidat bi rek laay nekk oh, sa dama xam lan mais parti bi bu ah, nga ne candidat rek moo xam la xumbal no xumbal comédie non xoola am buzz do doon naa dara même élection yi nii si c'était pas le président Macky Sall waaw parce que gis naa ne moom kese moom ma fi tane dama doon nekk candidat waaw élection yan. élection yi ñu jëm nii deux mille vingt quatre bi. deux mille vingt quatre moom ah, président Macky Sall président Macky waxagul dara. dama ne waxagul mais ñun ñun. sénégalais yi nga xam ne seen bopp mi ngi ubbeeku di dox. waaw ñëpp a dajaloo ne moom mooy suñu candidat te man bokk naa si sénégalais yooyu. te dinaa si xeex sama kem talaay kattan nañ waxante dëgg nag. waaw muy élection euh, locale ak. muy élection législative ak. muy hmm. présidentielle comédie ngay def. comédie non ba la xam ne comédie comédie ngay def. waaw non xaaral réseaux sociaux yi. attaqué leader yi gauche droite dugg seen kii. waaw ma ne waaw di wut buzz mais est-ce que kuy kuy kuy comédie. mais ce n'est pas sérieux. waaw ne kii co kii comédie dina dem di def parrainage. yow ñu léegi yow sa yar ñan ñoo la topp yow ba nga naan da ngay ma ne la Sénégal. ñan Sénégal mais ñi fi yor mairie de Dakar. waaw pour yow ñoom rek ñoo ko gagné ay coalition la mais fi personne n'est mais à part yow marchand ambulant yu sàndagay. yow den nga am non non déggoo nee la ñun ñi ngi diriger benn mouvement national et international loolu laa wax. xoola mais ñii di ko ñii di dem di campagne yi fu ñuy jëm du ci marché yi waxale si ñu ñuy jëm du ci secteur informel bi y une grande coalition du secteur informel dont je le coordonnateur hmm. si ca cent quarante six départements yëpp loolu looloo la jay yow ba nga naan da ngay waaw mais loolu mais loolu base bu dëgër la soxna si mais Sayer foog ma ñëwaat ñun kenn si nga leeralal ma parce que man dafa jaxasoo xamatuma yow waaw ban parti nga bokk bi ma lay xam euh, yaa ngi woon PDS waaw yaa ngi doon si président Macky Sall. Euh, waaw Abdoulaye Wade plutôt. waaw PDS laa la xamee. waaw waaw si nga doon yëngatu. mais qu'est-ce qui se passe léegi nekkatoo PDS anuma ànd nga ak ñoom Oumar Sarr. Euh, léegi yaa ngi si côté président Macky Sall. expliquez ma carrément qu'est-ce qui s'est passé ba ma xam yow fan nga nekk. xam nga ñun xam nga xam nga ñun PDS lañ bokkoon. waaw nga bokk bu ñu demee si dialogue. Mhm. man Oumar Sarr. Maître Amadou Sall Babacar Gaye Charles Diaw Sara Sall maintenant conseiller au du président de la République Omar mm. Sarr ministre ainsi de suite ñun ñoo ñëpp PDS lañ nekkoon léegi bi nga xamee ne toog nañ ak le président Abdoulaye Wade ñu bëgg def dialogue pour que Karim ñibbisi deux mille après après les élections de deux mille dix neuf mm-hmm. ñu toog ak président Abdoulaye Wade maa ngi PDS mu ne ñu dem leen si dialogue parce que en politique les chaises vides n'apportent rien. Mmh. n'est-ce pas non la politique de la chaise vide. merci n'apporte ouais. rien, rien du tout. waaw man musu je n'ai jamais accepté la politique d'un siège vide. Mm. c'est pas bi nii ni ni ñu jàkkaarloo mu ne Saër dem leen ngeen jàkkaarloo moom bu leen waxee lu leen arrangé wul ngeen ne arrangé wul su leen arrangé ngeen ne. arrangé président Abdoulaye Wade. waaw Omar Sarr mi ngi toog Bamba Ndiaye mi ngi toog et Decroix tout le monde était là-bas si réunion FRN FPDR boog du moins. Mmh. bu ñu waxtaanee ba tënk ba ka paa bi jox ñu aval que ñu dem comme nii ma génn fii rek si émission rek si yoon ñu ne ma euh, yéen de waa PDS bind na communiqué que ne doo leen dem si dialogue mm-hmm. man ma ne comment ça ñun de si paa bi lañ jógee réunion baa ngi soog a tas te xanaa paa bi ñu jógee nii même pas dix minutes moom du moom mooy wax lool ndekete Karim moo bind communiqué Karim day wax fii day wax fee. Mm-hmm. day day day day sant ñii sant ñeneen. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. ñun waxtaan nañ ak ngeen di rivalité seen digg diggante. day wax ñii wax ñu leen. voilà voilà léegi moom moom moom ñun ñun ñi nga xam ne ñun wóolu nañu paa bi tamit wóoluñu mais moom day ñëw seetaat ñeneen ñoo xam ne nii da leen di sant leneen xam nga tey par exemple fi ñu egg nii mënoon nañ fa bañ a si moom dafa ne. buggul buggul buggul euh, buggul amnistie. Hmm. révision de procès la bëgg. xam nga deux mille dix neuf ak léegi ñun xamoon nañ révision xaju fii. Hmm. comme révision xajul woon foofu waxuma laa léegi. Hmm. ñun lii moo ñu jëlee PDS. léegi nag ñun comme dañ ne woon Sénégal moo ñu tax a jóg te dans les premiers temps en deux mille dix sept Karim que muy génn kaso bi. Karim ñun moo ñu yónni si Macky Sall bon pas man man parce que je contestais. dama si xuloo ak moom si kaso bi ma ne ko lankal bul génn. Mhm. soo génnee perte nga moom Karim moo ne ma seer xaar leen comme man ngeen di jàppale si télé laay wax fenu ma mhm. ma ne ah mu ne ma mu ne ma xaar leen ba ma joxaat leen feu kon kon xam nga ko moom bëgg na génn. Mhm. Umar ñëw ne ko Karim nu ma la gisee nii yaa ngi dépérir noon la. bàyyi ma ma wax ak président bi bi bi ñu daanoo ba tey Umar Sarr ki parle de mu ne Karim bu ñu daanoo ba tey man musuma wax mais fi ma la gis nii sonn nga Karim dafa feebaroon ci kaso bi mais mu bañ ne du génn kooku ne ko sonn nga soo ma joxee feu vert man dinaa ak président Macky Sall mu bàyyi la. te musu ko déclaré feebar bi. kan si Karim non non non franchement à toute honnêteté léegi Karim mu ne ko mu ne Umar waaw man kenn waxuma de maa fekkee mu ne ko wante bu ko paa bi yëg Karim bëgg na génn mais bëggul président yëg ne Karim Karim mi ngi négocier pour génn. Mhm. comprendre nga lu ma wax léegi si la Umar woo président Macky ñun yoon bi ñu mun a jaar mooy que ñu dialogué. Hmm. waxtaan ba. si premier dialogue boobu voilà si voilà non président moom il moom nit ku baax la boo ko xamul da ngay wax xamuloo mais moom à chaque fois soo ko waxee man de problème bii laa am moom dina la wax sa sa sa solution lan la yow boo amul moom mu teg bosam su su la arrangé ngeen avancé léegi moom si la ko ne ah, xanaa ñu wootee dialogue suñu wootee dialogue ngeen ne ko bàyyil Karim ainsi de suite amul problème man ma bàyyi grâce laa man ma gracier ko léegi xam nga xam nga Omar Sarr moo dox loolu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Hmm. ba ñu bàyyi Karim Karim dem. kat dem hmm, Doha léegi Karim bëgg a dellu si. léegi waay waaye tey ndey su ma la rusee si affaire tey. Hmm. nga nga nga soo ma rusee si dara defaral ma man suba soo soxlaa si man ma war naa ruus si li nga ma defaloon dem ma defal la léegi président si la wax ne moom bu ñu ñëwee dialogue comme Karim dafa bëgg a ñibbisi ñu jaaraat fi ñu jaaroon. ngeen dialogue waat encore. merci pour Karim ñibbisi waaw. léegi Karim moom pro propos yi mu def du ma toog ci télé yi di ko wax. Mhm. président Macky Sall lànk ne ko man du def loolu te ñun wax nañ li ñu wax ak moom ba pare ak paa bi moom mu bàyyi fi paa bi bàyyi fi Oumar Sarr bàyyi ma fi bàyyi Maître Amadou Sall bàyyi Babacar Gaye seet ñeneen yónni leen ci président Macky Sall ne ko defal lii soo deful lii du ma ñëw. Mhm. kooku ne ko man du ma def loolu ñun yëguñu ci dara. mais comme ñun joxe nañ suñu aval ba pare te ay sénégalais lañ bëgg jàmm mi ñun ak Omar moo yóbbu PLD PLD après la moo leen yóbbu ci comprendre nga lu ma wax. Mm. léegi si dialogue Karim boo ma guddi mu ne ma woy yow waroo dem foofu. mu woo la yow guddi. waaw mu ne ma yow waroo dem foofu. ma ne ko lu tax ma ne ko est-ce xam nga lan moo ma fa yóbbu mu ne ma non ma ko xam parce que yaa ngi wax ak Macky Sall man ma ne ko man damay jiite benn entité ñu am problème te avant maa dem wax naa la que ne jaaykat yi dañuy am problème te coono bi ñuy am yëpp man li may song Macky moo tax gars yi di leen dóor chaque mm. nga léegi nag man dinaa dem. dialogue ñu may ñu jàmm. moom point boobu mu nangu ko mais quand il voit que man man ak président xam nga président moom li ma wax du ko nëbb dafa ne ma sayer ana sa camion xeer yi ma ne ko jeexagul des na tuuti ku nekk ree ñu tàppante mm-hmm. yàlla rek moo ma tiim ma ne ko président mu ne ma ne ko bàyyil Karim mu ne ma man jàpp ma Karim bon c'est vrai yoon la et tout ma ne ko si yow soo ko soo ko soo ko soo ko mayee comme ni mu ni mu defoon dem mm. soo ko mayaatee bu ñëw mu ne moom bañul loolu mais ku buggul ñëw nag kooku mënu si moom dara du la may par force mel ni yow moom day da lay sarax pour jox la président mais li mu wax noonu dëgg la ma xool ko xam ne kii nitu kese la ah. li mu wax nii. lu lu yem moom bëgg na Karim mais Karim moo ne buggul. mais léegi ku ne bëgguma nag yow. donc Karim bëggul ñëw wala bëggul. non Karim xam nga lu mu wax dafa ne nañ def révision de procès. mu doog a ko ñu woo télé yi ci àdduna bi yëpp nekk Macky Sall nekk Karim Wade deful dara. mooy Macky Sall du defee lool sax nit ñi attaqué ko ne ko yow looy def ni hmm. non Karim il dit que na Macky wax ko moom deful dara. Hmm. genre quoi. Hmm. kooku ne moom du def loolu. li mu mën mooy lii su buggee jël su buggul xayrun nu waay xam dem ma xam ne. kii nitu kese la et jàppalul kenn dara. si lañu si la ñu tàppante reetaan mu ne ma yow ana sa camion xeer yi affaire yooyu man man fekk na man damay man sama camion laa yor rek damay sànni. Mm-hmm. léegi moom ñu tooñante si loolu ku nekk reetaan. Mm-hmm. moom reetaan yooyu nag mu ne man waru may waru may wax ak Macky di ree. di ree man ma ne ko man yow moomuloo ma. Mm. la loolu. ma ko yow moo moo ma bay wax naa reetaan wala ma jooy yow defaloo ma dara si kaw laa man nëbbatuuma ma ne ko man président Abdoulaye Wade moo ma joxoon respect te musuma nommé directeur musuma nommé ministre musuma nommé dara. mais am naa si moom cofeel moom mu am si man cofeel mu respecté ma ma nekk marchand fu nekk la may fu fu fu mu nekk bu ma bu ma ko buggee soxla su ma ko soxlee gis ko lu ma soxla tam su ma ko ko santee mu defal ma ko. Mm. parce que bi ñu fay jëgee jëlee leen marchand yi ñu jóge si bureau xalifa Sall dama dajale gars yëpp ne leen kaa leen dem si président Blade bu ñu demee léegi kii dinañu may jàmm mu mel ni moom dégg na li ma wax sëriñ Mbacke Ndiaye mu ngi may dégg jour boobu Serigne Mbacke la nekkal si palais bi bu ñuy dem policier bu ñu arrêté foo leen jëm ñu ne leen force dañuy jàll paa bi bu mu déggee coow li lan la mu ne ñoom seer ñoo la bëgg a gis paa bi dafa ne ñëw leen yow mus nga gis loolu mhm. ay marchand yu jógee fee rek nga waaw mhm. ma ne ko a yàqal parce que daf ñu a dàq man du ah, ma nëbbatu ko nag yow yaa ñu ne woon yow soo faloo fii kenn deetu ñu dàq ma ne ko ñun loolu moo tax ñun ñëpp ñu uti ji carte suñu premier carte yi ñu voté la nga gañ mais le président il dit seer dellu leen ngeen toog seen place tant que maa ngi fi kenn du leen fi jëlee xam nga kan la ñu fi jëlee 2013 bi ñu fi Ablaye jëlee. waaw kooku même bu la joxul dara. Hmm. moom respecté na la te yërëm na la yéene na la tamit. Hmm. moo tax man Ablaye ku ko wax dara rek. Hmm. man daf may touché. da lay du ma bàyyi lool ak koo mënti doon nag. léegi euh, différent boobu ak Karim Meïssa Wade moo la jëlee PDS wala. non non man man man man moom dafa dafa dafa dàq genre pas daq gars yi quoi mais am na différence ak gars yi te man ñu laa daan àndal ñu koy xeexal. ñi nga xam ne déggootul ak ñoom voilà xam ñoo ñu ñan la le FP FPDR président Abdoulaye Wade moo nekkoon président bi Mamadou Diop Decroix nekk coordonnateur bi Oumar Sarr nekk facilitateur bi loolu c' était l' opposition temps yooyu. Mm. ñëpp si lañ bokkoon. mais ci ci biir FPDR boobu nag Karim nee na waa FPDR yi ñoom nañ écarté wu. Mm-hmm. indi leen problème. voilà yaa ngi dégg ma ne ko ñii bu leen écarté parce que ñoom ñii ñëpp ñi ngi dem kaso. Hmm. te yow yaa tax ñii dem kaso. kon kon ñii yow da nga leen war a. am na leen loo leen war a xoolee ak bët boo leen di fayee mais pas fekk na. loolu xam ñoom bi ñu génnee nga génn ànd ak ñoom. waaw parce que parce que parce que man voilà parce que man du ma ànd ak ay nit mu mu gis ma gis ñoom risques yi ñu daan def man nag Umar dugg nañ si oto oto kii yi nii oto yi ñuy dugal kii oto police yi fourgonnette yi. Mm-hmm. mais oto bu am ay lacrymogène mu explosé ñun suñu gaawloon génn kon ñu ak Omar yëpp si biir oto bi lañuy ñuy dee seetaanu loo ko Sandaga mhm. mais pour kan la woon pour pour Karima ah. mhm. Karim il de dedans ñuy jël ay risque di def front ak gars di xeex Omar Sarr à son âge à son ak man ay Bamba Ndiaye ñeneen met Amadou Sall ñoo ñëpp di xeex pour moom un bonjour rek mu ñëw ne day dàq ñooñu par force te man ma gis li ñu doon def man moi j'avais un ki sa s'appelait MBK ki bàyyil Karim ma jël si tous les risques di si dem kaso waaw ñëpp xam nañ ko mhm. léegi kooku su jékkee-jékki ñi nga xam ne ñoom man ñoo ma daan dimbali man mhm. bon bon noonu laa ko mën a waxee ñoo daan toog di nas et nga jékki-jékki nga ne wooy da ngay dàq ñi mais da ngay toog ma ne leen ma ne ko ñii ñoom dañ lay dañ lay jàppale waaw yow waroo leen dàq ñooñ si lañ demee ma dem ànd ak ñoom man dàq ñu ma PDS de maa bàyyi yow yaa bàyyi voilà génn différent boobu moo ko indi mais da doon sànni xeer si internet bi hmm. président Macky Sall chaque jour que dafa jàppoon Karim waaw di ko attaqué di ko sànni xeer euh, à la veille des élections élections yu mujj mooy législative yi waaw euh, Macky dalal la pale waaw nga dugg palais am noo génnee pale ne Macky jox na la oto. jox na la xaalis. solaat beneen mbubb si si internet bi. di di di politigal Macky. di def propagande pour le président Macky Sall. Hmm. changer discours carrément ah. gars yi naa la mais kii est-ce que Sayer la wala du Sayer. Tambédou waaw ndey Kumba Sayer la. xam nga xam nga bi nu mu demee. ak ñaata lañ la xam nga man expliqué naa la départ bi. nee naa la moom dafa jàppoon Karim. Karim c'est un frère libéral même bu dee doomu lay Wade. Hmm. ñun loolu métti mu métti paa bi. mu métti ñu wax naa ne la man paa bi lu ko métti rek Abdoulaye lu ko métti man métti na ma. su mm. kontaanee kontaan naa su meree mer naa. léegi gis naa ne moom li ñu jàpp Karim neexu ko ñun ñu futteeku di xeex ak waa mais waa ji mu bàyyee Karim man laa si pare déggoo nee naa la moom dafa ne kaay leen ñu waxtaan. Mm. bi ñu waxtaanee ñun ñu teg teg tegal ko lu ñu neex mu nangu ñu ko tegal rek mu ne d'accord na. mais keneen jóge fee ginnaaw mu ne moom lii la ñuy def par force. lii moo indi différence bi. waaw léegi bi ñu dialogué noonu nag man si dialogue si laa juboo ak président Macky Sall. waaw audience bi nu demee non xaaral si laa ñëw léegi bu si dialogue man bu ma waxee sama condition yi mu bëgg. Mhm. condition yëpp mu defal ma ko si jaaykat yi man amul problème ku nekk dem après si lañ toog si xuloo yi may wax noonu si xuloo yi ma xuloog jàppante yi ma jàppante ak gars yi si législative yi. Mhm. si la ma président woo. vraiment ma koy remercier di ko féliciter si oyofam ak dalam. xam nga président de la république nga jël sa téléphone nga woo marchand yow de sa barak nga. su ma seet président Sall mooy wax allo Sayer Tambédou soxla naa la ñëwal pale wala wala. gars yi ñoo la woo ne président en personne man ku ne ku ne yaa ma yóbbu fa waxoolu am. Hmm. président moo jël téléphone am. mu wooma président am na ay nit yoo xam ne nii ñu koy jàppale ñoo xam ne nii kenn gisuleen te yàlla rek tax. Hmm. bon des fois du ma bëgg a tudd tur parce que kooku bëggul loolu mais comme président comme nit yu mel noonu la war di diisool chaque instant. parce que ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom su gisee waaw léegi nettali ñu audience bi. waaw moom laa lay wax ni président daf ah, moo ne ma. waaw waaw président daf moo ne président daf moo ne ma seer. bugg naa ñu gisee ñu waxtaan. waaw mu ne ma kañ ngay soo amee jot ñëwal. ngoon sa nga non non waaw lundi non non non la ma wax non lundi la ma wax ñëwal ma ne ko non il faut ma waxtaan ak gars yi mu ne ma mardi man ma ne ko non mardi ñu pousse ba mercredi ma ne ko mercredi mercredi ñu kale ko après ñu dem foofu xam nga léegi nit nit koo dem seeti ji. waaw président bi bokk ak ku mën ku ko mënti dem seet. moom dina la jox paas. mais ñaata la leen jox seen paas yi du fóon na de. Ah, xam nga dinaa la dinaa la dinaa la wax dara dinaa la wax dara tey. oto bi moom Macky Sall jox moom na ma oto franchement. ana oto bi. mi ngi ak man. oto bi cher na de. zéro kilomètre oto biñ la may. waaw zéro en tout daal oto bu bees tàq la ma may. oto bu bees tàq la ma may zéro kilomètre. waaw mu jox ñu trente millions paas mais xam nga. trente millions paas moom du pour man. pour sa yàgg dafa ne seer am paas leen. waaw si jour boobu noonu. Mm-hmm. koy wax fii mu leer xam nga kenn ku nekk ñaata nga am cinq cent mille. Mm-hmm. trente millions bari na de. mais cinq cent mille mën na def dara de. Mm-hmm. dama ne président Macky Sall maa ngi koy marchand yi ñoom ñoo ma koy wax fu ne ma foo jëm fa lañ jëm. loo wax loolu lañ wax président lu mu wax loolu lañ wax non xaaral non du corrompre xam nga non yéen comprendre leen de non ma expliqué waaw waaw non xaaral ma expliqué la xam nga nit mercredi la dala foog naa dimanche la élection dimanche mooy élection yi mais dama ne nit koo koo koo defal teraanga rek bu fekkee ne nit la lu mu la mënee delloo teraanga bi dina ko delloo imagineel koo xam yow da nga daan dem si banque banque bi boo ñëwee fii day wax ndey kumba damay ñëw lebal ma lebal ma cent cinquante mille par exemple mm-hmm. ñu ne demal indi Ndeye Comba mu garanti la Ndeye Comba day indi carte d'identité am Ndeye Comba lay fu mu dëkk pour nga lebal ma juste cent cinquante mille on te traîne partout à mm. léegi benn ngoon nga sangu ba set. nga ñëw toog kat deux heures temps rek kooku may la téeméeri junni. waxtaan la le numéro un des sénégalais. waaw waaw comme ça. am na sama xarit sama benn xarit. Mm. moom dafa ne ma bu la neexee boo toogatee télé waxal lool daf def si ngénte. Mm. sama beneen xarit kooku takk si jabar sama beneen xarit koo xam ne nii moom nee na moom nee na jabaram nee na ma nee na ma moom jabaram moo am moo am wërsëg doomam bi man la koy tuddee ma ne ko noonu delloo ko président Macky Sall mm. comme tey comme tey jii ni la ñëw moom suba lay ngénte suba lay ngénte ah mu dal si mu dal si noonu te xoolal ki ma lay wax nii da dañuy woote nii di woote rek mu ne ma yow day foo ma woo dinaa ñëw heure bu ñu jàppee fii suñu bagage yi nga ñëw xam nga kooku day ñëw rek te yàlla rek tax mais ñëwul moom xalaatul woon sax ne loolu lay am mu ñëw dal si lool am na ñu si ngénte am na ñu si takk jabar am na ñu si jënd bagage sama benn jigéen ku baax ndeysaan mm. daf may envoyé ay vocal ba damay tuur ronkoñ sax des fois yaayam jóge màkka yaayam jóge màkka mu teral ko Macky da leen a ger waa léegi non du ger non dama ne non non de dégguloo ma ne dama ne dama ne day mel ni day mel ni dafay mel ni non dafay mel ni Macky Sall était un envoyé de Dieu xam nga lu tax dafa am ay nit yu am problème sérieux ah, seen problème bi rek waaw déggoo waaw ah, mais déggoo ma de nee naa la nee naa la nee naa la président Macky Sall est un de Dieu xam nga tey yàlla moo ko jaarale si moom mais dimbali na presque quarante nit yoo xam ku si nekk yaa ngi woon problème ba fii mënoo si dara mu ñëw rek fajal la lool mais loolu képp ku nekk sénégalais da nga si war a bég te xam ne moom. borom baax yéen a siy bég yéen ñi andi seen xaalis non non attends kaay ma wax la. ñun gisul dara mais xam nga si. si gis nga ñi bég noonu. mais kenn ku si nekk da nga am njaboot. par exemple. boo ko boo ko calculé boo ko calculé ci ci soixante nit ci soixante ci soixante nit par exemple. marchand yi yi tagoon ko kilifa boo si gis. quatorze ba quinze nit ñi ngi ci ginnaawam ñooñu am nañ famille koo ci dégg ñu ne kii de kii jàppale na ko ci lii rek kooku dina ci bëgg non si non munoon na bañ a def lool non mais xool waaw mais munoon na munoon loolu munoon na ko ci bañ a fekk tamit ah, ah ma ne ah, ma ne comme waaw dégguloo ma de même kooku loolu loolu munoon na ko si bañ a fekk wallaay bilaay munoon na ko ci bañ a fekk le président Macky hmm. il est généreux nit ku baax a ngi noonu ko am yéen man mais sa oto bi ñaata mil ana sa man daal oto bi jënduma ko mais may na ma oto bu bees ma ma maa ngi koy dawal su ma ah? amee fu may dem seeti militant yi campagne bi ak yëpp moom laay dawal moom ngay jël dawal moom laay dawal dem seeti sama ak no waaw sama activité yi mhm. dem seeti militant yi si mouvement bi ku si bëgg a dem fenn soo bëggee dem nga jël oto bi nga dem sa yoon et mm. léegi looloo tax nga jógee fa rek euh, daanu rek daan ne troisième mandat je m'engage non naa la. Hmm? le le le troisième Macky trois je m'engage pour deuxième quinquennat je c'est une demande sociale. des si boole non gis nga nag yow yow Sayo Tambe du dóor dóor kat dëgg nga yow. du question de door xam nga ah. léegi. réew mi lii moo tax doxul. non yow nga waa léegi kon kon mi Mimi ture bi jógee fii dem fee moom dóor kat la. Ah, waa loolu lépp si xeetu door la ah. gisatul boppam fële. intérêt voilà mu ngoog day taxaw fële. mais mais xam nga tey. man sama dóoru kon baax na. xam nga léegi dóor boo xam ne ni yow gis nga ni kii kat mu ngi jëmale fii Sénégal pour mu jëm kanam yow nga ànd ak kooku. waaw moo tax nga parce que troisième candidat lii du lii du troisième troisième candidature de. Ah, troisième mandat lay laaj. non non. trois am na fi benn am fi ñaar bu amaatee beneen kay ñett la. waaw non dama ne gars yi ñooy wax ne troisième candidature la. Hmm. troisième mandat la. waaw comprendre nga li ma te loolu si kattanu yàlla yàlla antul na ko ba pare troisième candidature lay wut. non lii c'est une deuxième quinquennat non xam nga xam nga tey lay am troisième mandat xam nga tey président Macky Sall si départ ba mhm. ñun dañ ko doon xeex de mhm. moom dafa ne si sept ans yi daf koy wàññi mu nekk cinq ans ñun man bokk naa si ñu ne i sa waay kii de moom lii su ko defee moom vraiment mhm. chapeau mais conseil constitutionnel moo ko ne yow ci sept ans yi mënoo ko wàññi mais yeneen cinq ans yi di ñëw ak yeneen cinq ans yi si topp boobu da ngay arrêté mais sept ans yi boobu si mooy les premiers septennats et les deux quinquennats yow da nekk juriste wala da nga nekk constitutionnaliste. non c'est pas ah, ça. mais xam nga boo xam nga war a valider troisième candidature. loo xam ne conseil constitutionnel xam nga du xam nga du. yow kay ne rek en cas bu mag yi engage woo. ne dafay bokk ngeen jàppale ko. non mais ay war na bokk ak warul bokk. nii fi ñu toll nii. waaw ay deuxième man boog man si si sama logique. sama sama ligne de conduite. man dépassé naa naan ay Macky day bokk. xam nga lii lii si lay liggéey non man présentement le mouvement m xam nga lu muy liggéey. waaw victoire président Macky Sall bu 17 heures yi voilà ñun si loolu la ñuy liggéey 17 ah. heures match bi tas. ñu ñu dóor gars yi premier tour. fu fu fu Sonko bokkee foog ñu ñëw. non Sonko non si dossier Ousmane Sonko Adji saar bi ah. Euh, yaa ngi suivre bu baax a baax dossier bi yëngal na réew mi dossier Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang yëngal na réew mi mais actuellement liy def actualité bi mooy procès bi la fa xew euh, ci mardi bi. ban jàngat nga si am tey ji Ousmane Sonko euh, candidature am bokk ci élection présidentielle nekk na loo xam ne tey na xelu ñëpp ak euh, diffamation ak euh, daan biñ ko daan contre ak euh, procès ko avec Mame Mbaye Niang mais aussi peut-être li ko mën a xaar li ko mën a fekk ci procès bi nga xam ñu ngi ko doon amal mardi mu doon jàkkaarloo ak ki nga xamante ni mooy Adji Sarr nga gis ni procureur dafa laaj dix ans de réclusion criminelle contre Sonko Sonko nag nee na amul mbindeef bu ko teree mën a nekk candidat en 2024 ban jàngat nga si am si bon xanaa li ma si njëkk a jàngat rek mooy am si kersa lool. Mhm. parce que Ousmane def nañ trois ans si benn table bu ñu doon réunir. Mhm. dans les premier temps man bokk naa si ñi ko dal si opposition bureau Malick Gakou yi nekkoon Yoff côté imprimerie Tanja. Mhm. mu mu soog a dugg si opposition ñu ngi koy soog a rajee mais ku ma waxoon lii soxna si wax démb. ak moom li muy xëcc loolu am na ma weddi ko au vrai dire ah Ousmane Sonko day wax ne président Macky Sall moo koy def lii dañ ko complot dañ ko def lii dañ ko deflee si couvre-feu man bokkoon naa si ñi daan am autorisation de parce que moi j'étais membre du comité de pilotage du dialogue national, dialogue national. Mm. mais doonu ma woon génn parce que gis naa yeneen sénégalais yoo xam ne nii bëgg nañ génn mais mënuñu génn sama sama sama autorisation bi musuma ko génnee parce que fu huit avant huit heures tëdd na pour respecter ñeneen ñi Ousmane Sonko il est député bon je dire il est aussi dans l'opposition c'est bon nekk ci kàngam yi mag yi mm-hmm. su guddi jotee mu rocceeku ndànk mm-hmm. dem dem suite boote bu doon dem foofu kenn yëgu ko bu demee foofu mu xam ay xamam génn dellu <laughs> xam nga mm-hmm. léegi. yow de mel ni yaa ko fekkee. non non moom ndaw si lu mu wax démb xam nga man si. man bugguma ku may nettali man bugguma ku may nettali maa ngi si tribinal bi ndaw si si nu mu waxee. Mm-hmm. moom moom moom soos na soosaat soosaat soosaat soosaat ba muy cinq fois. ah sa yër yaa ngi tooñ de. jigéen bi moo wax de du man. aji Sarr moo ne. kii soos na ko cinq fois dëpp na di për ji moom moo ko wax de ku jigéen gi. Mm-hmm. wax yeneen. xam nga tey ji bu nekkoon maay jabari sonko yi hmm. ku si gën a ndaw ki damay jël sama bagage yi ma dem nga dem waaw maam bu ñu dégloo aji sax dañoo takk seen bagage waaw waaw su fekkee ne ndaw si li mu wax noonu ñi jigéen ñi gis nañ ko man damay bàyyi parce que je ne comprends pas xam nga am na yenn côté yoo xam ne nii kii nit dafa sori kenn bu ko tuddee rek ba pare insister am na lu xew man nag maa ngi soog a xam moom li tax moom aji saar xam nga depuis le départ nee na Ousmane Sonko lu mës a jàkkaarloog moom mais keroog loolu am na bu fi affaire amee xoola moom dans les premiers temps xam na ne lii du jàkkaarloo bi. Mhm. mais fii la doon nekk si cité kër góor gi ne gars yi génn leen. Mhm. sàcc yi jóg xam nga dafa am benn phénomène bu am boo xam ne nii. Mhm. Euh, agresseurs dafa daf Ousmane Sonko loolu daf ko nax. si si si si couvre-feu bi muy wax noonu gars yi génnoon dafa métti woon. ndey man même man mii di waaw même man mii di wax ak yow. dafa métti woon. même man mii di wax ak yow. même man mii di wax ak yow nii. man jour temps yooyu man maa ngi jàppale Macky Sall mais dama sonn xam nga ban heure ngay xëy 11h. Mhm. non non 7h du matin ngay génn sa kër 11h ngay egg fi ngay liggéey. Mhm. balay 3h. nga nga takk bagage bala yow yow yoru yow yoruloo dara léegi gars yi xool nañ xam ne système bi lan moo ko mën a fi jeexal rek ñëpp mhm. jogandoo. lii moo indoon affaire bi mais s'il croit que fa lañ toll ba léegi. il se trompe lourdement. là on est en politique nee nañu déloger président Sall. non xoolal xoolal ñu ngi leen di xaar Ziguinchor ñëw Dakar waaw. xam nga loolu yomb na. premier jour xaar veeg moom moom moom moom keroog bi ñu ko nee ñëwal. waaw pourquoi moom toogul fii mu mu ñëw déloger président Macky Sall. en plus du moom ak la président Macky Sall. moom ak Adji Sarr la. moom la ak Mame Mbaye Niang man affaire Mame bi sax dama koy bàyyi. parce que ñëpp gis nañ Sénégalais que moom Ousmane Sonko moo def conférence de presse mu ne. maa ngeeg dossier bi buñ may woo ma ko indi sama téléphone def nii waa yëpp ñu ne ko ana dossier bi mu ne tey moom daf ko fàtte suba ñu ne ko at indi indiwaatal dossier bi mu ne tey ndiggam bi mooy metti wala tàng ginnaaw suba ñu wax ko mu ne moom daf ko gis ci presse <laughs> mais kii dafa yab nit ñi xam nga loolu kon kenn waxu ko difa diffamation la kenn kenn moom moo ko defal boppam mm. on passe affaire bi xew nii keroog mm. moom moo ko tegaat boppam xam nga xam nga moom moo toog si télé mu ne jour wu tabaski boobu noonu li mu doon yëg si yaram xam nga góor day am luy nekk si moom benn mm. instant am na degré yoo xam boo fa eggee loolu su génnul rek mën nga si jëlee gumba mm-hmm. mooy lan mooy du ma waaw moom li mu yëg si yaramam noonu ñun góor yëpp dañ koy yëg waaw góor yëpp dañ koy yëg mais yow yooyu soo koy yëgee te fi nga xam ne foofu rek nga daan dem boo fa demulee ma ne la soo demul loolu génn mën na nga ci jaaree gumba moom loolu moo ko dal comprendre naa ko ku nekk góor rek xam nga li ma wax dama ne ku nekk góor moom li mu wax noonu moom moo ko wax. mais nee na dafa feebar dafa feebar di métti si yaramam xam nga yaramam di métti moo tax mu jóg si couvre-feu bi dem faju ji non xam nga man li beauté loolu la wax waa déggoo ma de waa suite suite beauté dama lay wax dara suite beauté danger la de parce que man lu soxna si wax keroog lu soxna si wax fële xam nga jacuzzi est-ce que xam nga jacuzzi bu am ndox waaw kooku kooku kooku boo ko tàmmee musiba la jacuzzi bu am ndox ñu tànc la si góor foo fu sa xel mi demeti rek yow foofu nga jëm man comprendre naa ko moom loolu moo ko yóbbu foofu mais moom ak niveau war na mu am retenu bay bañ di dem ci première étape deuxième étape troisième étape ay degré la. Mhm. mais moom nag degré bu degré bu bu bu mu dem noonu dafa sori ba nga xam ne moom amatul maîtrise moom dafa bëgg nag ndaw si ah. Adji Sarr oui. Ah, parce que non daf ko bëgg xamal tax ma xam lool. nee na nee na nee na Adji Sarr moom doyewul dara. Adji Sarr moom loolu ah? loolu tey la koy wax. Adji Sarr dafa ñaaw waaw doyewu ko dara. non moom non non xam nga xam nga ñaaw ak am feeling ak vise bokkul. Mhm. xam nga góor boo amee vice. yàlla ñu yàlla musal si loolu yow doo doo yow même kooku sax bu yeboo mu nekk leneen yow yow li nga li nga bëgg a def def ko rek mais xool xooluloo ay rafet moom kooku dafa am vice. Sonko moo amoon vice Ousmane Sonko dafa am non dafa am vice dafa am ay vice. yu nekk si moom waaw xam nga góor ak jigéen ku nekk di nga am vice. loo xam ne ni yow yow loolu daal loolu la ngay. gis quoi merci. du ay mais du du rafet ak leneen ak leneen mais en plus te kooku Adji Sarr dagg bu rafet la man ma ko seetlu mais démb. man gis naa ne nee naa ni sama benn waay ah grand bii kat boobu wax na dëgg <laughs> parce que lii nu ma ko gis ak déplacement am yi ku mu ku mu ku mu ku mu tànc si sakku si fu mu la mm. woo di nga ñëw te lu mu la sant di nga ko def léegi nag tey bu ñëwee ne la xam nga viol dafa dafa yomb xam nga tey imaginer xale boobu noonu ak taayam ak yëpp bu la tàncee si sakku si suba nga ñëw mu ne la tey mënuma ko mais da nga koy song moom foofu la ko viole foofu la nit ñi di waxee mais nit ki boo sas jabar sax soo ko sàkkee mu bañ bàyyi ko mais boo ko sàkkowee moom mu ne mu ne mu ne bugguma nga nga forcer ko viol la waxuma la si nag yow koo xam ne ni chaque jour nga ne yow ibaadu nga doo nuyu jigéen nga ne adduna bi yëpp yow yaa si gën mais tey ñu ne la ñu ne la ñu ne la tey yaa ngi woon si benn milieu boo xam c'est une milieu de pitorie mhm. foofu dañ fay jaay ay caga par exemple parce que femme bi moo ne Ndeye Khady Ndiaye man maa ngi foofu toog de kenn nettaliwu ma sosuma moo ne moo ne dafa am dafa am trois ba quatre ba cinq façon de massage. man nee naan man nee naa naa si déglu ñaar rek man bu ma déglu ñaari rek doyal naa. Mhm. nee na premier massage bi mooy deux pattes. Mhm. Euh, heureusement juge bi nee na ko lan mooy deux pattes mu leeral mu ne ko deux pattes mooy benn nit. Mhm. xam nga kooku ñaari loxo la. mais bu amee quatre pattes nag mooy ñaari jigéen. mais si ñu jàpp Ousmane Sonko ñeent ñaari jigéen loolu pornographie la lool loolu rek délit la kooku dañ si war a tëdd cinq à dix ans muy jigéen ki. muy muy muy ku góor ki fay dem parce que ku góor ki xaalis lay jox di corrompre ay xale yu jigéen yoo xam amuñu xel moins de vingt ans mm. xamoo ñi ban souffrance lañ am xamoo ban feebar lañ am xamoo yan problème la ak seen kër ba lii li bokk au lieu nga jox leen ay xalaat nga dimbali leen ñu bañ a nekk ay pétas nga baal ma si wax bi mais nga leen di influencer ak sa xaalis ak sa daraja di ko napp si ay pison naan ko ay dara du si dik bon demu foofu pour ko mais xam nga jigéen ak fitam mm. li ko yóbbu fi tam kii nii boo génnee teg dara moom loo ko sant da koy def. xale bu jigéen bi dem na nag ba sës mënatul loolu. après mu bàyyi mais Ousmane Sonko est un acteur de porno. Ah, mu ngi noonu. Sayer yaa ko wax de. man maa euh, temps bi dab nañu ma bàyyi la nga tàggatoo auditeurs yi internautes yi téléspectateurs yi. bon bon di nuyu sénégalais yépp mhm. di wax que ne na ñëpp ubbi seen bët ak seen xalaat yi Ousmane Sonko pouvoir lay seet ñun ñu pouvoir. di doxal dëkk bi gis nañ ne mu ngi avancé di am pétrole di am gaz en deux mille vingt quatre de président Macky Sall war a exploiter loolu. Mhm. des jaloux comme kooku Ousmane Sonko ñoom non seulement ñoom am nañ problème ak ay xale yu jigéen mais dëkk bi ñu gis muy dox mu am pétrole gaz ñu bëgg a accaparer loolu laqatu si ay lobby tapi moi j'étais dans l'opposition lu may xam naa ko. Mhm. ñoom dañuy yor ay 4x4 dañuy dëkk fenn nourri loger et tout ñoom durant nekk ñ ma tudd ay tur mais durant am na am nekk ñu woon député. mais chaque jour ñu ngi ci kaso bi ci seen kër yi dañuy joxe dépense ku leen di jox dépense yi. am na ñoo xam ne nii bëggoon nañ ñu signé leen contrat pour pétrole bi ak gaz bi ñoom seen bos ba jàllul ñoom ils sont prêts pour mettre des milliards pour brûler ce pays. na sénégalais yëpp jóg taxaw ñu lànk parce que Ousmane Sonko moomul sénégalais yi impôt domaine la nekkoon dóor ba yàlla may ko jàmm. mu ximalee ko ñëw nee na nit ñi jóg moom jub na moom nekk moom du nit ku jub parce que kuy dëpp xale yi ndaw di leen dippar ci kooku mënuloo yor Sénégal. mais noonu léegi na sénégalais yëpp jóg taxaw ñu def face jàppale la président Macky Sall parce que c'est le candidat idéal. ba deux mille vingt neuf incha allah ñu jox Sayer du réew mi ma doxal Sénégal jëm kanam. mi ngi noonu muy Sayer du nekk président euh, des jeunes marchands ambulants et des débrouillards euh, nekk tamit initiateur mouvement ah Macky 3. je m'engage pour un deuxième quinquennat. pour un deuxième quinquennat car c'est une demande sociale. sénégalais ñoo ko laaj. waaw ñu ngi koy remercier bu baax a baax Sayer Tambédou di leen remercier yéen également auditeurs yi ak téléspectateurs yi ak internet yi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf.